asalaamaaleykum chers internautes Saint-Louis TV tey man Serigne Birahim Diagne ma am mbégte di leen dalal seen émission penc mi ki ka daan def nag ngeen xàmmee ko ci loolu muy Cheikh Niang waaye tey man am naa mbégte loolu di ko fi feelu ñu nar a waxtaane ponk yi am solo jëmale ko ci wàllum politique jamono yi gis ngeen ni xew-xew yi ci wàllu boobu bari na loolu moo tax sax tey jii ñu indi leen invité de marque invité boo xam ne ñu bëri ñu ngi ko doon xaar xam naa ni tur bi di ngeen ko xam muy Mamadou Lamine Diop waaye moom mi toog tey jii tungu ne du teew ñuy ñuy nataal D'ina ko bàyyi mu présenter wu ndax ñun ñep ñu mëna xam kan moy Lamine Diop. ma ngi nuyu wa département Saint-Louis yep ma ngi nuyu waa euh wa Ndar yep ñu ngi leen di nuyu euh, man ma ngi tudd Mamadou Lamine Diop ñu gën ma xam ci dom ma ngi dëkk euh, Ndiabène euh commune de Ndiabène euh précisément village bu Ndiabène euh, bon ingénieur des pêches là et aquaculture ma ngi liggéey ministère de la pêche et de l'économie maritime bon ci côté politique. man maa doon mandataire ak représentant wu candidat wu parti bii ñu naan euh, APR Alliance pour la République bi nga xam ni moom la le président Macky Sall jiite man maa leen demaloon élection Gandiol euh, bon malheureusement dañoo pertoon élection yi ndax euh, ki nga xam ni moo fa nekk nii maire moo ñu gagné woon des 87 voix jërëjëf. mu nekk présentation bi nga xam ne jot na ko def si bopam si jëmmam légui rek ñu bëggoon xam jamono yi gis na ni crise bëri na lool ci APR Mamadou Lamine Diop xana lool duñu doñ ko wéddi waaw c'est waaw xawna compliqué xawna compliqué parce que euh, foog naa ni sax moo war a gën a tax ma sawar ci invitation bi ngeen ñu invité parce que ñu ci bari dégg nañ ko ñu ngi préparé suñu mouvement pour mën a dem am dañ préparé mouvement parce que jël nañu décision jël nañu ndogal ne incha allahu rabi suñ ko yàlla fekkee léegi jàmm dinañu am candidat pour élection départementale ak élection locale yi bon dégg nañ sax né dañuy coupler élection euh, locale ak élection euh, euh, législative yi mais inshallah allahu rabi même su féké non la démé mouvement bi dina am candidat pour les élections législatives dina am candidat pour les élections départementales muy département Saint-Louis dina am candidat pour la commune de Ndiébène Gandiol pour élection yi ñu jëm. waaw ci loolu mën est-ce que ji mënu ñu wax ni APR. fi ñ ko doon xaar ak fi mu mujje daal daa am mbetteel loolu est-ce que loolu tey jii du defet tey jii gis nañ ni saaga yi bëri na ci xuloo yi bëri na ñin ciy dàq tamit bëri na lu ci euh, gën a récent rek mooy Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne jot nañ ko cee dàq moom mi amoon problème ak Yakham Mbaye ak Farba Ngom gis nañ ay saaga yu mu teg la si jëmm yooyu waaye dàq nañ ko si gis nañ tamit Moustapha Diakhaté dem créer beneen mouvement ci biir APR muy mouvement taxaw APR yéen tamit tey jii nii ngeen ñëw ne da di taxawal seen mouvement bopp lan mooy firnde lan mooy expliquer loolu noonu. waaw mais xam nga xam nga boo xoolee euh, c'est euh, lu regretable la li nga xam ni moo xew ak euh, suñu papa Moustapha Cissé Lo man personnellement bokk bokk naa ci ñi nga xam ni d'accorduñu ci ci ci ci ci dàq bi ñu ko dàq sama point de vue personnel la parce que man gëm naa ne problème personnel la am ak ñooñu mënoon nañ ko régle feneen. donc da nga bëgg wax ni ay ne mën permettre de non, non non non non non dama ne moom saagawul ne parti bi de ay la qui lay mais si APR am texte yoo xam code day interdire propos outrageants outrageance les personnes quand même. mais euh, euh, nañ mbir mi ci contexte ay vocal privé la kan ci ñun qui a wax ci vocal ne commençant par man donc man je suis contre que ñu jël une affaire boo xam ni c'était un truc privé ñu l'avons ko sur la place publique. mais qui l'a mis sur la place publique bi mooy yaa xam mbay parce que as un message yu jàmbur ki la un message yow moom moo message que ba koy jox keneen. waaw mais dama la bëgg expliquer benn affaire mën nañu bokk parti bi ba pare am ay problème personnel ma envoyé la. envoyé la ay message yoo xam ne c'est quelque de personnel ça incombe pas le parti ça veut dire que ne li ma bëgg a wax foofu mooy que ne du fekkee maag yow dañ bokk parti bi am ay problème personnel nañ ko régler de manière personnel et que ñu gi maintenant parti bi décidé na loolu foog naa duñ ci dellu ci duñ ci dellu waye yow loy looy ñaawlu la. waaw man mom d'accord ma ci dàq bi pour man euh, euh, amna lo loo man maa ngi le président Macky Sall depuis 2009 2010 lañu ñu seet exactement le 26 décembre la ñëwoon fofu que ne Moustapha Cissé Lo dafa bayyi lu bare bare je le défends fa musuma gis ni fudul ci télé bi xamumako ko boo posé wul won question bi sa duma ci wax ça m'intéresse pas mais dama lay expliquer rek ne la dafa nek ci ñi nga dañoo que lu pour le président le président Macky Sall pour man lu ci sax coloré war tax def def aussi warna ku ne tax xam sa parce que nag gens nit top nit ngir ndamam après

ban ban ban rapport le le le Moussa euh, euh, les responsables du parti mais moi, personnellement j'ai de très bons rapports avec les responsables du parti en l'occurrence le ministre Mansour Faye on a de très bons rapports mais suñu engagement politique dafa dépasser d'aller au-delà de 2024 parce que le moment de 2024 moi, dama persuadé ils sont persuadés que le président Macky ne se présentera pas en 2024. maintenant léegi. moom loolu noonu am na ñu ko doon wax ñu dàq leen ci parti bi. waaw mais tey jii que loolu rek gëdoo bëggoo gën a yombal sa dàq ci parti bi. <laughs> mais xam nga lan la du fekkente ne loolu lañ gis ñoom ñu nangu ko on assumera mais loolu mooy suñu gis-gis te suñu le ministre su fay woon daañ na ko ñun dañ gëm ne le président Macky Sall na sa parce que amul lenn lu ñu wan wanuñu contraire bi de dañoo man li nga xam ne moom laa déggee ci euh, à travers la télé ci gémminu président Macky Sall. moom daf ne biñ ko falee dane woon ñaari mandat lay def ba tey waxaatagul ne dinaa def troisième mandat kon dañuy jàpp ne du def troisième mandat. waaye waxal lu leer kuñ ne dangay présenté wala présenté woo mu ni mu ni du ma wax waaw du ma wax déet léegi lool lan lañ ci mën dégg. voilà xam nga yow nee nga waxul lu leer man leer na samay nopp xam nga nu mu du defaat troisième mandat. non du wax da ci mandat parce que l'expression est singulière. moom du ñaari mandat def. constitution mandat la wara def avant lolu avant lolu constitution qui ñaari mandat la wara def mais mom ci gemine parce que xam nga sur le plan constitutionnel problème mandat yi ñi wax un peu nuancé ambigu na ci nit ñi mais au delà de tout ça man lim wax vous la japp dama ne dafa commencé woon ne su ngeen ma falé ñaari mandat lay def bi ciow li béré mu argumenté aussi da ne damay bañ sama parti bi jaxaso motax duma du ne waaw duma ma man damay japp ne jusqu'à présent ñaari mandat lay def. légui mom mutisme bi am ci APR mom mi nga xamné nopi mom mi leen jiite yow lool noko ko lool mo waral togaay bi tay mo waral ñun ñu créé suñu mouvement pour. légui yeen wa gañjol tay lan mo leen métti luy seen problème. non amuñu benn métti je vais t'expliquer amuñu benn métti duñ ay frustré parce que lool aussi fokk ñu léral ko dama ne suñu engagement politique weesu 2024 te comme gëm nañu le président Macky Sall du présenter waat 2024 te gis nañu ne ne parti APR structuré wul xanaa du nous toog a ba 2024 ñu tas ko ne marché bu tas ne ku ne utile foo dem balaa boobu ñun ñi nga xam ne ñun ñoo àndoon di liggéey ñu structuré suñu suñu. mouvement manque de structuration boobu lan moo koy indi. bon je pense que loolu moom suñ koy suñ koy incombé euh, président Macky Sall lañ koy imputé parce que moom mooy secrétaire général du parti bi xëy na xam li tax structuré wu ko mais ni ma ko xalaatee man mooy couteau à double tranchant la parce que nous ñi teewul nit préparé mouvement mouvement international diaspora bon aussi aussi avons ñu ko Nous ñoo ci étaient dans le forum civil dañuy ñëw ànd mouvement parce que ñoo une idéologie suñu idéologie c'est que ne suñu engagement dépassé 2024 day dépassé euh, euh, euh, kii président Macky Sall le président Macky Sall jeexalee mandam, ñun nous avons politique donc il faudrait qu'on se prépare au yéen tey jii est ce que mënuñ leen mënuñ leen jàppee rek membre de l'opposition opposition parce que yéen a ngi régime yéen a ngi nekk au pouvoir ba pare bëgg limiter tamit seen candidat yi nga xam ne nii xëy na sax ay idée idée idée yoo la amoon na derrière la tête ngeen bëgg ko freiner. waaw mais xam nga loolu lépp mooy li ma la wax rek expression la gis-gis la rek que ne man en âme et conscience bi président Macky Sall njëkkee wax dane du def lu ëpp ñaari mandat ba tey waxaatagul ne day def ñetti mandat man japp naa 2024 day arrêté légui 2024 su arrêté kan mo koy remplacer sur APR ken xamuko parti bi structuré ko. moo tax yéen mouvement bi. ñan ño nekk ci ginaaw waaw xam nga euh, motax sank bi nga ma laajee tour bi bëgguma ci wax parce que mouvement la bo xam so amna ay représentants ndar gi mais amna ay représentants fenen ak fenen ak fenen te comme ñom ay kilifa lañ te bëggaguñu feñ nañ leen bàyyi ñu nëbbatu ba ci kanam mais man li nga xam ne moo ma gën a intéressé intéressé ma ci commune Ndiébène Gandiol intéressé ma ci département Saint-Louis mooy di wax ne képp ku suñu am di jàmm képp koo xam ne gëm nga suñu engagement képp koo xam ne gëm nga suñu yoon képp koo xam ne yaa ngi ñu doon jàppale pare nañu pour taxawal mouvement bi ba nga xam ne élection législative élection départementale yi élection locale yi nga xam ne mooy am parce que gëm naa ne du am 2021 man gëwuma loolu parce que ni ni ni jël nekkuñ ci disposition yi dañ nar a coupler élection président euh, élection législative ak élection départementale yi li ma gëm moy suñ ca yeggee ñun dinañu fekk ñu am mouvement bu structuré té ñu daañ su boobaa laa booba daañ ci waxtaan ñu wax leen tour bi wax leen suñu ambition wax leen suñu suñu programme ak lépp que né invité leen ci ah. parce que nekkul ne euh, encore une fois Diagne ma koy leeral rek euh, wax dëgg yàlla awma ben problème ak ben responsable bu nekk Ndar

li nekk ci suuf tamit da nga ko war a. mais mais mais mais lan moo ne ci suuf. amoo problème ak Mansour Faye amoo problème ak APR lu tax ngay génn APR. non mais c'est parce que man li ma gis nii amul ëllëg pourtant li ma wax leer na de. APR amul futur. mais euh, loolu newul man maa wax un parti qui n'est pas structuré amul futur parti boo xam ne kenn xamul kan moo jiite lan lan mooy futur est-ce que ñun dañoo war a toog ba 2024 ñu ne tas leen tas nañ ko ku ne dem tey boo xoolee lii c'est parce que parti bi kenn structuré wu ko parti bien ñu structuré kenn ñemewul jóg di autoproclamé wu candidat da ngay xaar parti bi désigné maintenant comme non la demee bàyyi ñu jël suñuy responsabilité parti bi moom peut-être que pour des raisons stratégiques bu dul structuré ñun ñu structuré suñu mouvement préparé en conséquence suñu xëyee 2024 le président Macky Sall ne moom kat jeexal na ay mandaam seet leen ken mais ñun dinañu fermer ñu am benn structure bu bu bu forte Nous ne ko ñun pare woon nañ pour lui. maintenant mouvement boobu nga xam ne moom la ñu dañoo compter des dans APR ba keroog lenen di am mais tant que lenen amul fi lañu né tant que lenen amul dañuy ñëw dañuy am candidat local am candidat départemental et s'il le faut ñu am candidat euh, ci élection euh, législative parce que loolu lañ gëm parce que dañuy préparé wu après Macky Sall 2024 parce que gëm nañu ne en 2024 le président Macky Sall ne se présentera pas. léegi yéen man du ma leen jàppee des frustrés de la ah man noonu laa leen mën a tudde léegi su fekk xëy na loolu. frustré par rapport à quoi parce que gisu leen seen bopp si parti bi xëy na am. am na yu bëri yu am yo xam tey jini, nii len ci sen seen bopp tax rek ngeen révolté wu Gandiol tey jini. est-ce que amuloon ay promesses yo xam ni président bi teniron ne len ko te def ko. non xam nga Diagne. Euh, mën naa ne euh, Gandiol mën nañ ko comme Sénégal du ne man ma dëkk Gandiol yoon wi bees na tàq ci lu promettre la mais tay ba tay bël baangi toj kër yi bël baangi ray rey yi man mi di wax ak yow ingénieur des pêches la li nga xamni mom lañu diggé ñu diggee ak askan wi ci walu bël bi ba tey amul mais euh, état gestion état ensemble de choses la da ci am lo xamni dang koy commencer keneen ñew yeggali mais pas pour autant que né frustré frustré par rapport à quoi man nee naa la biñu commencer euh, euh, euh, c'est vrai man ànd naak président Macky Sall depuis 2009 xam ko depuis Fatick parce que fala jangé samay xarit ak samay lepp ño fa né ñëw na Gandiol seet suñu en 2000 le 26 décembre 2000 2007 ñëw na entre les deux tours ande nañu mais ça c'est pas pour autant que daf ma yorel dara que man sama wërsëg nekul ci loxoy Macky Sall nekkul ci loxoy kenen parce que tay bo ñewon commune de Ndiabène Gandiol nga laaj nit ñi dañ la wax ne li li nga xamni sur le plan politique nous lañ ñu askan wi ñu koy def euh, bi coronavirus bi duggé gorgolu nañ ba au minimum c'est nañ 5000 masques ci commune bi a ko ci daara yi ko ci partenaires, euh, vulnérables yi actuellement ak partenaires tabax nañu ay de l'APR ou au nom du non dañ ko sur le plan social parce que wax vous yalla ku jël ay. a xawna am touti politique tamit. bon xam nga li gis-gis la rek tax man plan social foog naa ne ku jël ay masque yóbbul ko ay taalibe xaaroo ci ñoom voix taalibe yi moom xëy na suñ màggee mais heure bi duñ vote waaye mën na doon xeetu propagande rek. waaw mais ñun li ñu séddale ci masque sax siiwaluñu ko te amul amul bon du ma ne amul village bu amul parce que récemment on a compris que ne ci benn village Ndiol euh, li ñu prévoir pour distribution et qui distribuer jot mais loolu aussi ay couac la yoo xam ko dañ ko régler dans l'avenir. mais jot nañu séddale ay 5000 mas bo démé dans l'école primaire de Ndiabène Gandiol wax nañ fa salle de classe bo démé dans l'école euh, primaire de Poulour, actuellement nous ngi fay tabax salle de classe et et dans les mois à venir dinañu tabax salle de classe ci dinañu tabax commencer benn salle de classe euh, Mbaaw. te loolu du APR moo ñu ko defal nekkul nekkul mouvement bi ci boom sax moo ko porté mais fa la ñu dëkk. mais yéen kon yéen bi ngeen génne APR yàgg na. non nee na man pourtant man maa nekkoon ci convoi bi de bi ñuy falaat président loolu képp koo xam ne yaa ngi woon ci biir convoi bi dëkk ndar fii xam nga ko bi ñuy dem jëla mbaam man la ñu àndal man maa leen xaar bi ñuy siyone gànjul te euh, ma wax ko fii sax tey ñëpp di ma dégg man kese maa maa amoon fitu ànd ak moom ci yenn village yi l'actuel maire bañ nekkoon nañ dem village am daa bañ. parce que mangi ngi tiit ñu yooxoo ko donc man foog naa ne engagement bi ñu defoon ak président Macky Sall depuis ko muy yut nguur gi ba tey def nañ ko ànd na ak moom fal ko ànd nañoo ak moom jox ko deuxième mandat foog naa ne jeexal nañoo ak moom nag. yow léegi mouvement bi kan la nar a kan moo nar a bi est-ce que tey jii nii yow pare nga pour dékk loolu. waaw mais xam nga mouvement bi nee naa la léegi mouvement la boo xam ne c'est international am na waa ñu ne ci diaspora bi ñu ci ne am na ñoo xam ni ils sont dans au Sénégal ay kilifa yu mag a mag lañ. yu ci boo nee mouvement bi dafa am ñu nekk au niveau international tey jii est-ce que am ñu tiit si loolu est-ce waroo gën a mën a leeral ñan ñoo nekk au plan international parce que gis nañ fi ay mouvement yoo xam ne ni tey jii boo nee au niveau international rek seen xel day dem si ay lobby. tey jii da nga war a leeral. bon mais lan moo nekk seen ginnaaw euh, j'ai pas bien compris la question. est-ce que ni tey jii mouvement bi financièrement pare na pour jànkonteeg yeneen parti ci ay élections yu ñëw. waaw waaw non tout à lépp la ñu étudier nga baal ma ci parti lépp la ñu étudier aussi bien sur le plan mobilisation que sur le plan financier que ne Paré nañu Ci suñu jógee pour dem élection dañ xamné paré nañu Paré nañu pour dem élection que euh, euh remplir nañ critères yépp que ne euh, boo gisee bëgguma wax turu mouvement bi bëgguma wax ñi ci nek c'est parce que ñenn ñi am na la am ci ño xamné c'est des gros bonnets de la paire Paré nañ and lañu ak ñun que euh man ñenn ñi ci mouvement bi sax laa leen fekk que par intermédiaire ay ay ay connaissance lañu lañu ñu invité ñu

wax ak ñoom wax leen ni mouvement bi du su jotee parce que loolu lépp jotagul kan ak kan lañ ci àndal nan lan lañ ko gisee ñan ñan ñoo ci nekk parce que loolu moo gën a am njariñ. léegi tey loolu nag li tax ñu koy préparé mooy dañ koy préparé pour ëllëg ak si biir en 2024 su le président Macky Sall ne moom nekkatul candidat ñu wan ko ne yaay alternative que moom le parti structuré wuñ ko woon mais y a des mouvements structurés yu ne woon ci biir comme suñu muuma gis-gis bobu lañ ci mais c'est pas parce que on est frustré c'est pas parce que dañ mere qui que soit l'idée moy on se prépare à une alternative parce que xamnañu né le parti n'est pas structuré et su fekkee structuré amul euleuk comme amul nous ñuy préparer quelque autre chose pour euleuk quoi Non, la rek mais on n'est pas frustré ou quoi que soit. est-ce que tey jii nii waa Gandiol ak mouvement bi képp ku si nous suñu porté sen choix si yow ding ko mëna dékku. mais xam nga amul ben problème que né kuma xam xam na ni euh, euh, ragaluma responsabilité boo bëggee boo gisee bëgguma wax waaw directement c'est que booy ànd ak ay nit da nga leen di respecter respecter mooy suñu yàkkee il y a un choix sur quelque chose ñu ñëw ñu loolu du sax manque de respect mais question de leadership est-ce que tey jii Mamadou Lamine Diop pare na pour endosser responsabilité yooyu waaw bien sûr bien sûr mais euh, fi may waxee manque de respect xam nga fan la mu ngi mel ne maak yow ñu bokk mouvement ëpp ma la xel ëpp ma la ñàng ëpp ma la xalaat ñu commencé gu ñu mën ne ma bàyyi ko foofu lay waxee ça se fait pas pour man euh, rafet na nga bàyyi nit ki ku ci ne ci xalaatam mu joxe point de vue yëpp ñu jël point de vue bi gën ñu def ko noonu la rek mais pare nañu pour occuper toutes les postes de responsabilité je vous ai dit wax naa la tantôt que je suis ingénieur des pêches aquaculture que ne sur le plan professionnel pare nañu donc pare nañ sur le plan politique nee naa la léegi suñu projet politique pare nañ ko pare et pare nañ ko aussi sur le plan xam nañu naka lañ koy defee xam nañu fan la ñuy jëlee finance yi xam nañ nu ñu koy defee quest nañu. que nga ñu mëna wax projet politique actuellement lan moy idéologie lan moy base bi. bon xam nga man de base bi on va beaucoup plus miser sur la jeunesse parce que xam nga bo y a des problèmes partout faut le reconnaître hein que ne amna ci yo xamni lu ci melni ne foncier si la président Macky Sall fekk. mais tamit ki len jité won loolu bi mu ñëwee loolu la fi doon wax dé je vais miser sur la jeunesse mais après on a rien vu quoi emploi yi mu doon digle yëpp gisuñu ci dara yéen tay jii est ce que bu ngeen defee même option bobu jeunesse bi dana sentir boppam. bon xam nga j'ai revenir sur le fait que emploi yi ci dara xeyna niñ ko doon xaaree demeewu ko parce que faut oser appeler euh, dire la vérité xeyna niñ ko doon gisee euh, niñ ko doon xaaree demeewu ko mais nak amna lu ci am amna lu ci am ci programme yu baree baree bare beaucoup de jeunes non mané beaucoup de jeunes am nañ ci liguey faut le reconnaître que ne xam nga ñu bari bari dañu japp né am liguey moy am euh, liguey ci gouvernement mais tay suñ la jappalé ba nga monter ton ton projet yow personnellement am nga liguey du fekkenté yow monter nga sa projet tay monter sa entreprise jël ci kenen am nga liguey et xol xool. jappalé dañ koy wax non de tur fi nek mais ay ANPEJ ay deer yi ñuy wax yëpp ay slogan la rek. non non non non non non xam nga ah, jox ma exemple non exemple laa la jox man du ma wax sax ci agence yi dama lay damay wax damay argumenté beneen côté Tay, ku ne xam ne bi président Macky Sall ñëwee facilité na création emploi création entreprise Tay, boo doon ut entreprise unipersonnelle moins de cinquante mille boo demee chambre de commerce di ko am. après nga dem tijji sa compte nga commencer di di euh, euh, du fekente ne da nga bëgg a ay marché nga commencer di di di di di di di euh, ki ci soumet def ay soumission pour gagner ay marché xam nga ñun suñu jeunesse lan moy suñu problème dañuy xaar ñu defal ñu lepp mais waxuma sax Sénégal mais Afrique boko xolé bu baax di nga xamni Eldorado la parce que soxla wo tay ñi liggéey ci état bi ñoo gëna pauvre Et si vous commencez à investir sa xaalis ngay c'est possible c'est possible que vous fi sorte partir de rien du tout et gagner beaucoup d'argent parce que facilement vous créer une entreprise parce que facilement, vous nga am au euh, euh, Sénégal créer une entreprise unipersonnelle dem banque ba tijji compte hein, c'est très facile li ma pas pour mais lu meuna nek le la lu yomb la moins de cinquante francs parce que yenn banque yi sax il te demande pour compte entreprise 25000. cinq mille. léegi seen mouvement bi problème ganjol gànjool euh, kër yi daanu yooyu lan ngeen si nar a def. kër yi daanu côté bres bi ngay wax wala côté foncier bi problème non xam nga foog naa ni il faudrait que ñu toog ñu waxtaan d' abord ci solution bu durable ci bres bi nañu fàttaliku lan moo fi indi bres bi c' est en 2000 2003 octobre, euh, octobre 3 euh, ou 4 octobre 2003, le président euh, Abdoulaye Wade demandait à que nous ben ben brèche du côté de Djelembam. Brèche pour 4 mètres, le lendemain 8 mètres, maintenant on est à des kilomètres. Brèche pour moi déplacé vers le sud. le phénomène que nous tay le phénomène ñu ñu problème boobu ndar amoon en 2003 ba tax ñu tijji bël bi suñu stabiliser wul bël bi parce que bël baa ngi avancé di delluwaat sud su côté taré bala ndox mi génné ci jam ci barada jama bi di tuuru ci fleuve bi dana inonder la ville de Saint-Louis donc il faudrait que ñu am solution durable c'est-à-dire stabiliser ko gas ko gal yi mën di dem di ñëw parce que bo xolé problème yu baré baré baré moy stabilité bi mu amul da ngay jaar fi ak sa GPS dem géej bo ñëwee fekk fofu sulu nga jaarat fi sa gal gi dal mardi tali après muy né accident il faudrait que ñu def ko après suñ ko défé nak dina am ay impacté impacté yoy ñu xalat déplacer leen lolu mom entre nous hein, newul ne damay damay damay xas waa affaire quoi que soit waaw mais non non dama la bëgg ne nekk lu yomb la quand je que lu yomb la état su ko décider c'est quelque chose de faisable xawma nak lutax décider gu parce que nekkuma au cœur du dossier xawma lan motax tax defagu ko pétrole biñ ñu ne dañ parce que tay dañuy déplacer dañuy dañuy dépasser ay histoire de de de de hein au delà embouchure la ville de le département de Saint-Louis faut mu am fan la ké quai parce que découvrir nañ fi euh, pétrole découvrir nañ fi gaz découvrir nañ fi zircon il nous faut un port pétrolier un port gazier un port minéralier fan lay c'est des études fan moo c'est des études environnementales aspect yu baree bare ñoci la lu xeyna lool moy yéxal dossier mais c'est quelque chose de faisable mën na ne. waaw ñu wax ci lénen rek Covid bi. Mm-hmm. fond de force bi gisoon nga ni amna doolé pour science société civile bi participer na ci lu lu bëri. Mm-hmm. léegi dama bëgg xam rek ce point de vue par rapport à l'ol non est-ce que tu jii nii ni ñu séddalee xaalis bi fiñ ko dugal fiñ ko def yëpp est-ce que sa xel daloon na ci. waaw waaw man mom personnellement je pense que gestion bi baxna mais dafa am benen problème buñ am Sénégal. mais gestion bi baxna gestion bi exemple la lay jox man dama xam benn nit j'ai pas cité son nom euh muy gagné par par weer.

parce que pour man du pour ñi nga xam ne am nañ ba pare mais suñ demee ñi nga xam ne ñi nga xam ne am nañ ba pare ñoom seen loxo jot na seen ginnaaw di ko xëccoog ñi nga xam ne dañ ay néew doole lañ ça pose loolu moo xew. loolu la faute à qui. Mansour moom la ñu dénk loolu de ministre bi. ah defoon naa ma xam la benn. su fekkee ni séddale bi rek moom. Euh, euh, sama waa am na loo xam nag ah du du du du du président du Mansour du yow du kenn ñun la ñun sénégal yi suñu suñu comportement la est-ce que ma la wax c'est-à-dire que amuñu esprit de solidarité bi que ne dañoo am problème am na ñu ko amoon parce que ñi nga xam dañoo génnee seen xaalis euh, forum civil bi ñëpp def ko ci ñoom dañoo bëggoon dimbale mais ki nga xam ne mooy nangu du fekkente ne moom jàpp na ne moom gannaaw Covid bi yàqu am na ñoo xam ne Covid bi yàqul seen liggéey dem nañ bindu ji pour jot am nañoo ñoo xam waxuma dama ne levier bi ma lay wax nii. 1 dafa jël dafa jël carte d'identité dem déposé ji te boole ci di naan jotuma ci ndimbal man ko mais père yow wax dëgg yàlla. yow waroon nga bokk ci ñi jënd ceeb di ko séddale mais moom gisewu ko noonu ñooñ ñoo fi bare suñu fekkente ne majorité bi noonu lañ mel dëkk bi du neex defar du neex a defar que ne xam nga aussi yaa am na am na am na discussion bu ci am ndax dañ ko waroon jënd ceeb séddale ko ndax dañ ko dañ ko waroon def Orange Money ndax dañ ko waroon def Free dañ ko waroon def lii bon xam nga choix la suñ la dénk ay responsabilité yow yaay xool say technicien ah mais foog nga xam ne am na ñoo xam ba léegi jotuñu si ceeb bi loolu moom dama bëgg rek nga xam ni. transparence des na si. man démb laa la wax démb ci mujj. Guet-Ndar gii la dëkk amul lu ma yàqul ci mbirum ceeb bi parce que jàpp na ni j'ai de bonnes relations avec Mansour Faye te ni ñu ko séddalee baaxul. mu ne gisuñu gis moom ci boobam li mu wax laay répété ne ma am na ci kër yoo xam ne wuñ ko dugal nañ fay ñeenti saaku ceeb ñeenti kit quoi. tëb ay ñenti kër eh, c'est-à-dire que nee dañ ko sédélé sédélé partisan man suma ko doon sédélé duma ma ko sédélé non te gëmuma gëmuma ni non la ko euh, su fay bëggé mais nak suñ la joxé ay responsabilité mënoo nekk fépp il y a 500 et quelques communes que ne xam nga yow li nga mën mettre une équipe mais da ci am lo xamné sénégalais bi la mëno ci dara gis nga benen exemple bi ma lay jox moy xam nga tay bo xolé problème bi xew Ndingler ñom ño am Nous avons ci micro pour yooxu mais problème foncier le Sénégal et pourtant n'est pas Mansour ce n'est pas Macky pour wax banques ban prototype Sénégal la ñu nous, ñun commune nous man que les preuves au delà de xam nga nous avons nous jox nañ une délibération Quand une fait une délibération nous dem sous-préfet approuvé ñu uti nous ñun le gars amatul amatul majorité bu ko y a conseil municipal bi yeewu nañu yeewu ba tax ne imprimantam di ay permis d'occuper di di

ay tête ñu coupé ko ñoo xam ne ni depuis des années ñu ngi luubal alalu réew mi gis nañ ni oto yi ñu fiy jënd dafa bëri yàq xaalis bi dafa bëri dañ mën nañ ni daal gabegie moo am fii ci Sénégal daal yow tey ji am na ñoo xam ne nag ñu ngi doo xaar kaaw ñoom Awa Ndiaye ak ñeneen ñu regle ko pour une bonne fois pour tout tey jii nii loolu noo gisee. waaw mais xam nga Diagne moi je défends pas madame Tata Awa Ndiaye xam naa ko nii mais moom xamuma mais gis nga boo xamee comment l' état fonctionne. di nga ne li Tata dal ku ne. billahi je sur Saint pas. mais li dal la bëgg expliquer xam nga yow lo ministre. da ngay ben dage buy gérer buy gérer euh, say commande du ne mom défé ko mun ko a yow ne bien que lañ koy du moko def yalla ci parce que là aussi cautionné mais. Euh, rapport IGE yi génn ni 2016 parce que liru moko et du ci wax luma ma leerul xaw ndax mu ngi ci xawma mu ci mais li une chose est sûre man si j'étais à la place du président Macky Sall képp ko xamni rapport IGE yi da la cité dina ko jox procureur mu wax ñu li ci am lool moy sama conviction personnelle mm. maintenant le contenu précisément xamuma ko wax deug yalla buguma ci débattre parce que ci xamuma xamuma contenu bi waaw kon jërëjëf mbokki internetu Saint-Louis TV lii lañ leen fi indiloon tey seen émission penc mi. ñu ngi may signalé léegi naan ma jeex na maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo jàpp si émission bi ak sama invité bi nga xam ni tey nangu woon ñëw ñu waxtaan muy Mamadou Lamine Diop. ma am mbégte doon ko def di remercier tamit hôtel Roña bi nga xam ne tey moo ñu jox lieu pour ñu mën a dérouler émission bi ci condition yu nu mel. te di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.